président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa janoo ak askanu Sénégal ci ab discours boobu de discours sax laataa mu koy def le PM Ousmane Sonko euh, waxoon nañu li nga xamante ni moom moo di contenu bi euh, bi mu ñëwee nag si la ñu xam leen ni dafa fas yéene tas li nga xamante ni moom moo di assemblée nationale euh, ci le douze boobee mu méngoo ak li ñu premier ministre waxoon le 12 député dinañ tal leneen lu dul nekk ay député. déjà sur la forme bu ñu ci taxawee euh, naka nga jàngatee keroog sortie bi nga xamante ni président def na ko ma gis sax euh, kenn ci député yi di Pape Djibril Fall naqarlu euh, façon bi nga xamante ni noonu la waxee tas bi ndax neen da ko wax ak benn violence bi nga xamante ni sax moom desu koy nattable. président dafa nax député yi. kon ruse la. daf leen nax nax mooy ruse si tubaab. Hmm. waaw kon loolu la kon. président dafa nax député yi président député yi dañu ne. ñoom le onze le seen bureau assemblée nationale waxoon le 11 dañuy def euh, dañuy dalal premier ministre pour def déclaration de politique générale parce que président moo leen convoqué session extraordinaire ni ko ko constitution maye waaye ñoom it leen seen règlement intérieur maye ñoom am nañ droit def teg seen calendrier de travail ñu ne ko le 11 dañuy def déclaration de politique générale. Ah. président le onze amul woon sañ-sañu tas assemblée le 12 la am sañ-sañ bi. mu bind leen signé ko en date du 4 septembre ne leen na ngeen bàyyi ba le 13 ngeen soog a dalal premier ministre pour euh, déclaration de politique générale. Mm-hmm. waaye li yow wax nga ko léegi premier ministre nee woon na moom du fa dem. waaw ñooñu dañ tal leneen. le douze président tas assemblée. loolu mooy assemble ñoom ñu ngi doon waajal pare ne comme président la république la waxuma wax sax mais dafa bind signé kon loolu moom. dina fexe ba loolu nekk eh, président laata loolu di am mu tas assemblée bi loolu mooy naxaate am benn boroom xam-xam bu tudd Nicolas Machiavel euh, dafa bind benn téere bu tudd Le Prince 1532 16e siècle daf siy wax ne nguur pour nga jot ko ak pour nga téye ko loo def baax na na nga wax lu dul dëgg na nga naxaate na nga wuruc na nga galgal na nga tuur lëndëm loo mënti def baax na euh, président mhm. Bassirou Diomaye Faye mhm. la Nicolas Machiavel waxoon moom loolu la def nii pour gën a am nguur parce que li tax mu tas assemblée bi leen rek la mooy amu fa majorité ba amoon majorité assemblée du ko du ko tas hmm. dafa tas assemblée bi pour ñu démarrer élection législative pour mu jéem faa am majorité pour mën a doxal pour gën a am pouvoir mm. donc lii yëpp xeexu pouvoir la pour gën a am pouvoir pouvoir nit saa yu ko amee rek day gën a am dafay mbébét gën a am pouvoir pouvoir amel noonu mais Abdoulaye Wade bi muy jël nguur amu woon majorité à l'Assemblée nationale socialiste yi ñoo fa amoon majorité. waaw nguuru na ay weer. ci kanam doo ko ta assemblée. lan mooy différence bi moom ak Diomaye. ah yooyu laa ngi yaa ngi laaj lan mooy différence su euh, professeur ku nekk université di jàngale ak ku soog a dal CI ñaar ñoom ñaar loolu seen. di mais ñoom ñaar ñëpp ay njiital réew lañ et ku nekk soxla woon nga majorité à l' assemblée nationale. waaw waaye ñoom ñaar du ñu benn Abdoulaye Wade balaa muy nekk président de la république ku nekkoon euh, euh, professeur université. nekkoon na sax doyen faculté nekkoon avocat d'affaires dirigé woon euh, créé woon PDS euh, am expérience yi àdduna bi yëpp nekkoon ministre si Abdou Abdou Diouf. non nous sommes d'accord mais je veux dire bu ñu taxawee ci kenn yi rek ñoom ñaan ñëpp président yu soxla woon majorité lañ te terewul. donte ni soxla lañ ko kee moom euh, gouverné na ak euh, ñàkku majorité am lu des lu euh, ci ay weer doog ko tas kii moom dafa ñëw rek bëgg ko gaawantu tas def ay élections anticipées. yi ma la limal nii moo tax Abdoulaye Wade amoon xam-xam man-man ak pexe yoo xam ni mënoon na gérer loolu mais kii amu ko président bi ñu am tey mosul jiite dara amul benn expérience yi dara lu dul impo loolu rek la am fukki at ak juróom-ñaar agent inspecteur des impôts loolu rek la am kenn parewu ko pour mu nekk président parce que ñu loolu bokkul woon ci seen plan ñoom moom ci boppam da doon wax ni suñu plan ba Z mooy euh, Ousmane Sonko moom bokkul woon ci affaire bi bon bi affaire bi amee jiixi jaaxa suñ ko si dugal donc moom kenn parewu ko pour mu nekk président ba pare amul niveau pour nekk président amul niveau. kon la kee mënoon muñ am patience bi moom du ko mun. non la kee mënoon négocier la kenn mënoon teg ci stratégie. Mhm. moom mënu ko. Mhm. président mhm. amul niveau bi. su waxee nga xam ni amul niveau su jëfee nga gis ni amul niveau affaire niveau la. tey boo buggee jox euh, équation différentielle benn euh, élève CI mais du ko du ko résoudre. mënu ko. président mënul résoudre équation. te ni tas na ko ñu dégg ci le porte-parole du gouvernement Moustapha Ndiaye Sarr mu ne tey jii pourquoi ñu choisir la date du euh, du du 17 novembre parce que dina leen permettre ci diggante bi ñu tëgg assemblée bu bees en temps installé ko su ko defee du am benn impact ci li nga xamante ni moom moo di budget bi ñu war a voter en décembre. waaw loolu la wax xam nga léegi moom moo yor kàddu gouvernement léegi dafay ràcc jëmee ci gouvernement day wane ne lu gouvernement def baax na. xam nga ñun politique Sénégal moom la ñu woowee dafa polariser mooy man fii laa far fi ma far lu ñu def baax na lu ñu wax baax na faruma fii lu ñu def baaxul lu ñu wax baaxul xoola satelit gii ñun ñu naawal gouvernement bi daanaka dañ ko boycotté mooy moom nga sol nii moo ne ni gouvernement bi daanaka dañ ko boy tuuti zumal lool hmm? oui dañ ko boycotté premier ministre nga ko dégg mu wax si Penda yow mi nekk si tas si xabaar yi mos nga dégg premier ministre wax si satellite bi. déedéet dégguma président la république woo na xale yi tappal leen ku nekk benn médaille jeex na mais satellite bi dafa waroon nekk tey benn événement national bés bi ñu koy naawal ñu jàllale ko télé en direct. Mhm. jël xale yi tey ñun suñuy doom yi tey amuñu référence amuñu repère ñu jël xale yooyu naawal satellite bi jox leen comme référence ak repère suñu doom yi ne leen yéen ñii def nañ lii. yéen mun ngeen def lu ko. communication bu ca war sax dafa des. amul. am nañu ko am na ñu am nañu nga xamante ni yëguñu ko. communication amu si xam nga balaa communication di am communication moom ñaar la plan de communication campagne de communication amul zéro tey boo boo doon natt communication bi diggante zéro ba cent peut-être da ngeen ne def nañ zéro virgule zéro zéro un mais amul plan de communication amul campagne de communication parce que Macky moo ko réalisé. naaw na ba noppi Penda yow sax yëgoo ko. waaw <laughs> naaw na depuis le 14 août. Hmm. waaw gis nga taskatu xabaar yi sax yëguñu ko tey gouvernement waroon na woo taskatu xabaar yi jox leen xabaar gi jël ay étudiants forme leen ñu dem xamal sénégalais lan mooy satellite def campagne de communication boo xam ne day am ay spot ci télé yi spot ci chaîne ci réseaux sociaux yi def ay euh, affichage Euh, panneau euh, publicitaire yi euh, def ay oriflamme def ay t-shirt def ay casquette def ay cagoule lu ne ñu def ko pour jaay satelite yi wan noo ne ni que léegi Sénégal mu ngi si beneen niveau ndax xam nga ni yow satellite bu amul sa bi kenn du ko déglu li nga wax dëgg la satellite bu amul GPS GPS gi nga ma yónnee pour mu mën a ñëw ba fii satellite rek lii moom un moment historique la woo nekk loolu la c'est un moment historique tout à fait ñu boycotté ko ndax nee na ñun ñu nekkoon ci bon ñun de dañ see kontaan parce que man xam nga satellite dem see liggéey moo tax vraiment ñoom bu ñu ko boycotté man du ma ko boycotté. Mm-hmm. man du ma ko def. Mm-hmm. ñoom nag bon ñoom ñooy def yii di wane ne que amaguñu expérience amaguñu expertise moo tax ñu boycotté loo xam ne Sénégal moo ko moom te dafa waroon nekk loo xam ne. Mm-hmm. mais tey suñu doom yi dañ koy jël mu nekk mu nekk royukaay. tey xale yi pend xale yi Sénégal tey lan mooy seen royukaay. wax ma ko. luy roy kaay xale Sénégal tey tuuti nee na zoom na zoom na zoom na gaynde set bi. ah mais tey. Euh, euh, euh, tournel nii nee na mu zoom ko. nga jàkkaarloo sa caméra. lan mooy lan mooy royukaayu xale yi Sénégal tey ñun suñu doom yi. Mhm. lan mooy seen royukaay lan lañ leen jox comme royukaay wax ma benn. ah ah lu garaawee nii tey ñu am lu mel nii di ko saaganee loolu mu tudd bugguñu lu baax kon ñun. Mhm. wax ma benn royukaay doom yow yow say doom say jarbaat wax ma tey kan nga leen wax ni kii royukaay la si réew mi wax ma kenn. sëñ Touba. te tey sëñ tubaa sëñ Touba bi nga wax kenn du ko jàngale si école yi kenn du ko jàngale université kenn du ko jël di ko jàngale suñu baax yi ana tey sëñ Touba si wàllum diine wàllum jikko waaw d'accord mais tey si wàllum àdduna tey liggéeyu àdduna kan ngay wax say doom ñu nekk mu mu seen royukaay la mais xale yi defar li ñoom ñëpp ay sénégalais lañ. te ñoom sax ay royukaay lañ xale yi defar lii. loolu lañ waroon jël nag jël xale yi ne tey royukaay. dëgg la grand wax fa dëgg ndax yàlla dëgg la. bon ñun nag su suñu premier ministre ñu ngi koy ñaan tamit gedd gi mu gedd satellite gi mu génn si tamit bàyyi gat sa gat sa bi xam nga bàyyi cooki fin bi bàyyi mortal combat bi xam nga nekk si loo xam ne vraiment Sénégal sénégalais yi dañuy juboo xam nga bëggante. parce que penn man loolu problème la si man nëbbuma ko bañante bi ñu bëgg suuxat si biir sénégalais yi loolu problème la mhm. ngan dim problème réew yi fii ay réew yu guerre tàkk bañante moo tax muy am mhm. d'accord loolu parenthèse la woon mënu woon ñàkk mais bu ñu dellusee ci li nga xamante ni moom moo di di solution bi déjà wax nga ni loolu ruse la et loolu warul woon euh, mais ci ginnaaw loolee président anticipé na élection yi le 17 maa ngi koy wax léegi ak explication yi nga xamante ni